mbokk internet ñu ngi leen char bu baax e. a baax di leen wax ngeen dal ci am sur sport 221 kuy gan ci page bi ñu ñaan la rek nga abonné nga activé cloche bi bu leen ko di fàtte nag di liker vraiment c'est très très important bu leen nekkee aussi di bàyyi seeni ay commentaire xibaar dañ koy tàmbalee jonte yu ori yi nga xam mën naa ne ci ajuma ji assisté nañ ay mucc ayib en terme de jeu et de duel jàpp leen bu baax Espagne mooy mujjee gagné nag devant le pays organisateur biir moom mooy Allemagne ñaari bal ci benn de la ko daan comme ni nga ko fësalee Olmo biir moo remplacé Pedri dina ñëwaat ci moom blessé voilà Olmo dugg changé match boobee dugal à la te kooke di biir sa match di bëgg a jéem mu égaliser à la 89e minute ñu dem ca prolongation yi laata mu jeex kooke di Merino moom kat mooy dugal ñaareelu bii bi voilà sur un centre bien exécuté par Olmo kon tey Olmo. vraiment wane na benn jour bu xarañ ci limi amal kon ginnaaw gi masterclass am boobee moom lañ tabal lii nga xamné moy mooy homme du match vraiment c'est mérité comme niñ ko fësale waaye kër diit la yemal bi nga xamné ci première bi moo amal passe décisive voilà tàmm na di amal japp len bu baax nak bi moy troisième passe am décisive ci jonté après Croatie Géorgie kon def na face à la Mannschaft ek depuis 1966 ak benn jour espagnol musul amal passe décisive yu toll ni vraiment kon rien à dire pour le jeune de 16 ans. waaye comme ni nga mooy que kat équipe dafay soxla joueurs yu expérimenté ci noonu lay kooku di Carvajal mu sacrifié wu nag à la ci benn attaque benn mouge yàlla moo ko jàpp ko xam nga ne amoon nga amoon na carton jaune ci noonu muy deuxième carton voilà mu dem sa ji comme ni nga koy waxee mooy que carton rouge ak kooku di Luis de la Fuente di coach subu Espagne bi nga xam ne moom toog la muy yamal ñu bëri comprendre ñu nag nu mu demee. waaye moom nag mu ne équipe boobee nag xool lañuy jouer jàpp leen bu baax mu ne nag am na lu ko neex lool benn honneur la pour moom mu diriger équipe bi nga xam ne mi ngi wane xar kanam bu mucc ayib depuis teelu lii nga xam ne mooy jonte yooyee mu ne nag cross pot bi am def na ko ci pédir yi barrage foot bu teel lool mu ne nag foot boobe mérité woon na carton rouge waaye arbitre bakat di Anthony Taylor moom sax joxu ko sax loolee di carton zone ci foot boobee mu génne nag ginnaaw gi bañ càmbaree ay mbiram mooy ko staff médical bu waa Espagne xool nañ saytu nañ kat moom mi mooy Pedri du mën a wéyle lii nga xam kat mooy jonte yu ore yi ndax dafa amee lu ñaan entorse ci li nga xam ne mooy ligament ci genou gauche bi malheureusement pour le joueur catalan bi nga xam mi ngi doon def Europe bu mucc ayib et que ñi ngi fësal sax moom moomee di Anthony Taylor match bi voilà nag metti woon na ndax lu mat fukk ak juróom benn carton kat mooy ko ci wàllum zone moom la distribué sans compter carton rouge bi jox na ko Carvajal et que France que di ñoom ñi nga xam ne kat ñooy mujjee daan waa Portugal ci teg dóor ya ginnaaw ba ñu tembo zéro bi partout kon France ak mi ngi doog a remporter sa première séance de tir au but depuis 1998 et que ci équipe boobee Didier Deschamps moo bootoon loolee di capitaine bi en tant que sélectionneur mu ñëw def exploit bu rëy bi face au portugais ek ñi ngi fësal équipe bam boobe mooy voilà nag ci taarixu euro mooy équipe bu njëkk bi nga xam ne voilà ci bu ñuy doxal ci jeu bi duggaluñu benn bi ek ci jeu boobu aussi kenn du leen dugal kon jàpp leen bu baax ñoom dem nañ ci demi-finale bi waaye comme ni nga mooy ko ku gagné la ñuy laajte ñoom ñu ngi ci carré d'as bi. mu dugg changé match bi moom meen mooy dembale moom lañ tabb li ngeen mooy am di match waaye ñu bëri jàpp nañ Mike Maignan bi xam ne def na ay parades des désir vraiment mérité woon na ko waaye UEFA ñoo def seen tànneef boobee ñu bëri dañuy jàpp ne góor yi nag parfois dañ leen di fàtte ak seeni ay performance kii nga xam ne mooy N'Golo ku jig Didier Deschamps la li li tax mu woole ko di du neen ndax kat le joueur d'origine malienne bi jàpp leen musul ñàkk la moindre match ci tournoi majeur lu ci mel ni coupe du wala boog jàppaleen leen bu baax lu mat ñaar fukki match mooy que 20 match yi nga xam ne doxal na ko 13 victoire la am de am 7 nul amagul benn défaite kon record boobe N'Golo Kanté moo ko détenir pour rappel. bu fekkee moom kat gàddu na record boobee Cristiano Ronaldo voilà nag moom quitté na kat jonte euro yooyu sans pour autant mu marqué. benn but naam amal na benn passe décisive waaye voilà nag loolee mooy clap de fin pour le quintuple Ballon d'Or moom ak Pepe nag voilà wala boog Pepe sax doon na jooy comme ni nga ko fas yéene la Pepe à 41 bi nga xam ne ci élimination directe yi jàpp leen bu baax mooy jour bi ëpp ay lim ci at moom aussi dafay tekk ay godasam comme ni nga ko waxee Ronaldo saay bu tekk ay godasam man aussi noppi naa kon ci noonu ne ñu ngi fësal Pepe aussi pare na ci sélection portugaise boobee. kon demi-finale dinañ am Espagne contre France ci noonu ñi ngi fësal waa Espagne wala nag dinañ ñàkk kat seen ñeenti titulaire Pedri dafa amee gaañu gaañ Carvajal ñu carton rouge ko Norman Morata ñoom ñëpp dañuy suspendre carton bi am jël nañ ko waaye pour la cas de Morata c'est un peu spécial ñi ngi fësal voilà nag carton bi nga xam ne jël nañ ko nag voilà mën naa ne Espagne bu dugalee recours nag mën nañ ko retirer. Pochettino nekkoon buñ mayul dina doxal ci demi-finale face au Bale waaye équipe bu Didier Deschamps boobe ñëpp kat dinañ jàppandi pour doxal ci match boobe ku ci mën ni Rabiot ak yeneen ci ay joueurs programme bu dimanche bi ñu ngi fësal wala boog programme bu samedi bi jàppale na à de 16h Angleterre Suisse 19h Pays-Bas contre Turquie ñu wéyale xibaar yi kookee di Vertonghen ginnaaw ak bañ a ci huitième de finale bi face aux Français doomu Belgique boobee voilà añ na ay ci li ngeen mooy Copa bi nag héros bi du keneen ku du Emiliano Martinez yàgg na leen dañ leen ci génne waa Argentine la ñoom ñu Équateur dafay gérésé ca mujjeelu joonte bi ñu tëmboo bi baax du ñu dem ca teg dóor yakat Emiliano Martinez wala arrêté ay planté ci noonee nag vraiment suvel na lu Lionel Messi bi dafa essayé benn panenka waaye nag mujjul antu waaye ñoom qualifié nañu li nga xam ne mooy demi finale ek ñi ngi fësal ci kayitu xibaar yi gardien équatorien bi mooy Alexandre Dominguez ginnaaw gi li weneen mexicain ba mu raté vala nag doon na ko defal waaye taxul benn ñoom ñoom ñooy takk seeni ay bagages Sergio Aguero mu ne ci xalaatam nag ci ànd yi ñuy dugg nii nag voilà leader yi nga xam ne moom la yaakaar ci seen sélection boobee du keneen ko du Enzo Fernandez Alvarez wala boog Mac Allister ñu bàyyi Argentine moomee ak i seeni jaloore addu suñ gaynde yi nga xam ne mën naa ne Betsoko baa ngi ci crise naam gaala si la yor na leen Mauritanie moo ñëw foofee ca place place bu jàmmalaay daan ñëw 6 buts à 4 kon fédération bi ñu ngi fës dinañ amalaat ñaari match ci samedi bi 6 juillet ca jam lay benn remake lay doon waaye foofee nag taxaw seetlu war na fa am ndax vraiment nag équipe bi kenn xàmmeetu leen et que ñu ngi fësal ci këyitu xibaar yi CAF dafa teg ay daan daan yu diis ko kii di Samuel Eto'o ba dafa lëkkaloo ak benn benn këru wàllum carte xaalis ci ñooñee jàpp leen bu baax nag moom meer mooy Samuel Eto'o nag dina fay lu mat 185 000 euros. ci ay koppar ek nag foofee ca Marseille naamkat ñoom ñu ngi ci yoonu amal déggoo ko kay di Youssouf Attal Youssouf Attal jàpp leen bu baax nag démbam lañ koy fàttali yéen ci ay supporter Marseille tàmm nañ ko ndax kooku di Greenwood loolee lañ ko waxoon voilà nag euh, moom bu jël loxoom dóor ci kaw jigéen ci noonu ñu nekkat bëgguñu ko faa ñu ñu lancé benn hashtag kon kii nga xam ne aussi mooy Youssouf Attal voilà benn harcèlement lañ ko def kat ci réseaux sociaux yi naan kat njiitu Marseille bëgguñu gis benn yoon doomu algérien boobee waaye Fabrizio Romano nee na kat ñii ci duñ xool loolee benn yoon ñu ngi ci yoonu dalal ko. foofee ci Angleterre ñu wax as lëf li gën a fës seen xibaar kuñ naan Nathan Wood défenseur central bu ñaar fukki ak ñaar boobee dafay quitté Swansea City ci DD bi dafay dem ci promu biir mooy Southampton xaatim fa contrat bu 2028 montant transfert bi ñu xayma ko ci 3 millions d'euros ci doomu angale boobee. officiel na nag ku signé en tant que nouveau joueur de Brighton contrat bi nga xam ne voilà na ko dem ba juin 2029 ñu fay 30 millions d'euros. West Ham ñu ngi wut ay xibaar ci norvégien bi Alexander soldot AS moo xibaar boobee ma rappelé moom ma nga ca real di doxal Man City ngi laaj lu mat million ci Ederson. ndax moom moo fa xaatim contrat buy dem ba 2026 kon club boobee mooy xool koppar yu ko neex mu jaay leen kon mi ngi laaj 30 millions d'euros ci Al bi nga xam ne mu ngi koy sibilee buñ soxandikoo ci The Mirror Ben Jacobs ci xibaar moo ne club club saoudien bi mooy Al Ittihad wala boog Al Hilal de Kalidou Koulibaly bëgg nañ lool kooku di Richarlison waaye Tottenham nee nañ bu leen ko bëggee fay leen 60 millions d'euros beneen dombrier bi nga xam ne mën naa nekkaat Arabie Saoudite leen fa utal lu leen fa utal li xam ngeen ko mooy utum xaalis eh, ak brésilien yi loolee seen mënin la jàpp leen bu baax nag kookee di William ci fulamkat dafa bañ benn waxut bi nga xam ne waa fulam ñoo ko ko tegaloon ci table pour mu wéy rek ñoom ndax jàppaleen am na club saoudien yi nga xam ne bëgg nañ ko ek ñu ngi koy fay ay kopp yu takku lool kon uti xaare jonn dem fa fay ci Arabie Saoudite kon joueur brésilien yi comprendre nañ lu nu mel kuñ naan Kaoru Mitoma doomu japonais boobee nag Chelsea bëgg nañ ko lool benn Jacob ci ay xibaaram Chelsea amal na déggoo nag pour la talent portugais bi ñaan Renato Veiga de FC Bâle mu juddu atum 2023 benn défenseur la parfois mu joué ci milieu de terrain bi kon polyvalent la kon voilà le gaucher comme niñ koy fësalee kon japp len quitté na nag euh, camp d'entraînement benn belle lañ ne di wajé saison bi kon Chelsea fay nak 14 à 15 millions d'euros club bobé bu ko défé lepp en tout antu buñ soxla ko ci Fabrizio Romano. kuñ naan samu omoro john bi ngeen ma fësalu naa ko ci gëyri xibaar yi naam espagne la juddoo waaye am nay origine nigérienne jàpp leen bu baax nag club bi moo atiko madrid nee na ko yoon kat ci waxtaan ci ka ñaka wër na amal waxtaan ak wa chelsea ci noonee nag chelsea noppee naka fay luma ma 2,5 millions d'euros comme salaire yeneen ay maqus la kon loolee dana takku bu fa ñëwee nag mu xaatim contrat buy dem ba 2031 waaye nag buñ doxalee ba ci yeneen saison yi dinañ ko 6 millions d'euros waaye ci kaw ñu déggoo ak Atlético Madrid Chelsea nee nañ dañoo bëgg recruter recruter le défenseur brésilien bi mooy Murilo bi bàyyi ko xel naan Nottingham Forest mi ci jafe-jafe de waaye benn défenseur bu xarañ ci li muy amal waaye nag Nottingham ñi ngi laaj 60 millions d'euros mu def Europe bu mucc ayib naam éliminé leen ñeen moom mi mooy Diogo Costa tey jàppul benn tiir waaye nag Chelsea aussi koy piise ay bët Manchester United nee nañ dinañ ay fort ci kii na mooy Marcus Rashford ginnaaw ba ñu xaatimalee contrat kooku di Erik ten Hag ndax ngeen ne technicien néerlandais ak doomu anglais bi neexoo ñu sën moo ko fësal ak uh, men mu nekkat jàpp bu baax Manchester United mi ngi ci yoonu nag jaay définitivement kooku di Donny van de Beek bi abale bu defee mu wàññi salaire am mën a doxal ca Manchester United ndax moom actuellement mi ngi gagné ca Bayern 15 millions d'euros bés bu ñëwee Manchester United dina nga fay 12 millions d'euros bu ñu soxandikoo ci Sport 1. Newcastle mën nañ dépense lu mat 100 millions d'euros ci été bi xam ngeen ne ñoom voilà ay fonds d'investissement saoudien ñoo leen moom kon am nañ koppar ci noonu nag mag pays yi ñoom ñu ngi ñu ngi wër benn ailier droit benn défenseur kon loolee mooy seen mbébét The Telegraph Tuto Juve mu ne Aston Villa mi ngi utee xibaar auprès de la Juventus pour le jeune espagnol bi mooy Dean Wilson moom nag benn défenseur central bu ñaar wala boog bu fukki ak juróom-ñeent la. kon ñoom kat bëgg nañ ko dalal kuñ naan jàpp leen bu baax Michael Arteta mu ne nag voilà bu ñu xoolee wàllum statistique yi nag voilà Arsenal ci ak yi ñu nii mënoon a mérité trophée waaye City moo leen ko xañ ek club gën a zub boobee bu sukkandikoo ci The Sun nañ déggoo ak Bologne pour signer le jeune talentueux défenseur italien bi mooy Riccardo Calafiori moo am ñaar fukki ak ñaar jàpp leen bu baax montant transfert xay ma nañ ko ci 50 millions d'euros mu ndar fa bu juróomi at. The Mirror fësal mu ne kii mooy William Saliba buñ mooy Arsenal mën na ko jaay xam ngeen dara nañ ko kii di Calafiori waaye ak koppar yu takku ci noonu Real de Madrid ñu ngi koy pii si bët buñ sukkandikoo toujours ci média anglais boobee. Ajax nag dañoo bëgg a signer ku ñu naan Nuno Tavares défenseur portugais boobee Sky Sport moo ko fësal Ansu Fati dinañu may ñu tële ca Barcelone mu ne nag voilà moom moo duggaloon bii bu mujjkat laata ñuy tëj foofee ca Camp Nou kon lu nu mel na bëgg amal bés bu ñu koy ubbi ndax moom dafa am bébét voilà nag benn sas ci moom. mu def saison bu exceptionnelle ku ñu naan di Gorgui Diop yenn moom ma nga doon doxal ca Monza kon ñëw na ca Juventus de Turin pour un montant de 20 millions kon moom benn portier italien la pour rappel. João Félix nag jàpp leen bu baax mi ngi coon kiliwaat ca Benfica laata ko man mi ngi ci waxtaanee ak club boobu portugais boobee ek xuus nañ ci bu baax a baax. libre de tout contrat moom mi mooy Pape Gueye signé na librement ca Villarreal pour ñeenti at ñu ngi fësal buñ soxandikoo ci Fur Sène moom dina entraîné pour la pour la première fois avec Villarreal ci 11 bi ek nag mais avant loolee dina amal li nga ne mooy visite médicale bi am jàpp nañ ko ci 8 bi bu lépp yembe mu xaatim contrat boobee. ginnaaw ba mu xaatimee contrat ci Olympique Lyonnais nag moom mooy doon sixième sénégalais benn moom moo gën a seer ci transfert bi. ndax ki nekk ci kaw moom mooy Kalidou Koulibaly ba muy quitté Napoli utile ca Chelsea ñu xayma ko ci 41 virgule 90 millions d'euros Sadio Mané ba muy quitté ca Southampton utile ca ca Liverpool 41 millions d'euros Nicolas Jackson Villarreal Chelsea 37 millions d'euros Sadio Mané Liverpool bay na 32 millions d'euros Abdou Diallo Dortmund Paris 32 millions d'euros Moussa Niakhaté nag mi ngi ci sixième toogu bi Nottingham Lyon. ñu xayma ko ci 31 virgule 90 millions d'euros kon vraiment rien à dire ci ma boobu mën na ci nemme ko ci sa gànn ga Ismaïla Sarr ak Keita Baldé Diawo kon suñ gaynde ak seen xarañteef mooy mooy wane nekkat seen ay valeur marchand kawe na lool cant ak ngërëm ñeel na leen di leen jaajëfal ba beneen yoon ci yeneen xibaar sur sport 221 ek bu leen nga fàtte benn yoon rëg kat dafay laale ak buuse à partir dina di matin bu fekkee vidéo bi dugg na ngeen mën ko taaxiloo ci site won One Champion.